nañu mbégte ak contentement di jàkkaarloo yéen comme niñ koy defee saa su ne asalaamaaleykum am cher internet GPTV Sénégal tey nag ñu ngi euh, leen di li nga xamante ne bii moom mooy nga xamante ne bii monsieur le maire Demba Diop ko fi donc nag euh, ginnaaw bi nga xamante ne bii ay déguerpissement yu métti ak affrontement tey nag ñu ngi vendredi euh, le 6 septembre ñu trois jours burdu tey nag ñu wàcc si fi nga xamante ne bii réseau bu li nga xamante ni moom mooy réaction wu euh, li nga xamante ni bi moom mooy jaaykat yi fi nekkoon est-ce que tamit euh, ñu ngi fi ñu nekkoon ba léegi wala d'accord nañu ci travaux yi que fi ñu leen jëlee ñu liggéey euh, lu ñu def dara ngeen topp ami cher internet GPTV Sénégal ngeen topp ma ñu daal di dugg si biir réseau bi daal di dugg si biir marché bi daal di waxtaan ak gars yi ñu wax ñu lan mooy seen réaction topp leen ma ñu dem surtout n'oubliez pas de vous abonner et de liker les vidéos surtout ngeen koy partager que am na njëriñ lool lool sama ma donc ñu ngi fi nga xamante ni bii moom mooy réseau bu Tivaouane après situation yi nga xamante ni bii aussi jot na fi jaar euh, muy ay déguerpissement yoo xamante ni bii ci euh, jour yi passé nemmeeku woon nañ ko fi léegi nag euh, ginnaaw bi nga xamante ni bii travaux yi nga xamante ni ñoom lañ doon def fi nga xamante ni moom mooy ci réseau bi ñu dellu si waat pour laaj ñi nga xamante ni bii ñoom ñoo fi doon daan seen doole est-ce que tamit travaux yi li jar nañu yëkkati leen ak tamit nan naka la ñu jàngee situation dëkk bi sëñ bi ñu ngi lay nuyu. ñu ngi lay fay bu baax. Modou Gueye la. waaw Modou Gueye ñu fekk la fi nga xamante ne bi moom mooy euh, réseau bu Tivaouane donc euh, ñu yëkkati leen woon fan yi euh, léegi nag ñu ñëw gis ni gars yi ñu ngi def ay travaux yoo xamante ni bi xamaguñu lan mooy sabab bi tey bu leen mënoon a laaj naka ngeen gisee naka ngeen jàngatee mbir mi. travaux yi daal comme li ñu waxoon rek biñ ñëwee fekk na ni ci mbedd bi yëkkati ñu ca bi ñuy yëkkati mën naa ni ñu ñi nga xam ne ñoo ne ci maget bi muy kom mbedd bi nekk nii riib bi amul kenn koo xam ni jox nañ la kayit boo xam ni dafa wane ni dañ lay yëkkati mën na am nag ñeneen son yi ñu yëkkati ñooñu jox nañ leen ay kayit mais ñun moom joxuñu ñu kayit li ñu am daal mooy xëy nañ bis rek ñu ñëw tracteurs yi taxaw waa mairie taxaw ah machine ak police ñu ni dañuy jóg ñu nit yëkkati nañ suñuy bagage bañ kuñ ko yàqal liñ ñu wax nag mooy dañu ñu fii du marché dañ koy def tëli karo quoi comme pavage comme yi ngi fi fekk ni ñu commencé ko après biñ ñu waxee ñu laaj leen ñu ne comme yéen da ngeen ñuy yëkkati fañ ngeen ñuy yóbbu quoi ñu ni ñu dangeen dem centre course ba mais centre course ba buñ ñu ko waxee tamit ñu dañuy yoobu foofu ca defaluñ ñu fa ay place defaluñ ñu fa dara danoo xëy xëy rek ni da ngeen dem course ba ñun biñ demee gis nañ ni defuñu fa dara dañoo dem pour ñu bëgg ñu wéeru ju miir bi bi ñu demee xool nañ xam ni loolu bu ñu ko defee tamit ëllëg dañu fay fekk jële waat ñu fa ndax lan gis nañ fa benn jaaykatu banaana boo xam ni parce que def na fa 15 ans wala 20 ans nee na chaque gàmmu dañ koy yëkkati ba nii nii nii rek barki démb am na ku ma ko wax ni ma gars yi bi ñuy commencé di nee na danoo danoo wala bale mu dal diine yi danoo ñëw wax ko ni ko da ngay déplacé wu kon nag comme kenn nit la ñuy yëkkati suma marché lu toll ni maquette nga bëgg ko déplacé yóbbu ko foofu kon bu boobaa comme nii la ñuy bañ comme ni def waa jooju la ñuy def dañuy yëkkatiwaat ci la jeunes yi taxaw ni ñoom carrément foofu bëgguñu ko ñoom bi ñu waxee ak ñoom wax nañ leen ñun lieu yi nga xam ne ñun bëgg nañ ko te ñoom ñooy suñu jiit ñoom nanguwuñu ñoom fi ñu bëgg a forcer mooy centre Koussouba centre Koussouba baaxul ñun nag d'accord nan ku ñu yëkkati mais boo ñu yëkkati dañuy wutal ay place defaral ñu ko ba mu normal bu boobaa xam ne dañuy yëkkati suñuy bagage dugg ci place même bu ñu dee dugg sax nga ne ñu da di dugg temps ngeen di joxe chaque mois ngeen joxe temps ñun ba ñu loolu ndax liggéeykat lan ci xaalis la ñuy yëngu mais tey boo xoolee man travaux yi nu waxoon mën na ni Tivaouane booy xool dajji nañ mbedd yëpp. toj nañ ba toj sax ay kër jàmbur te boo xool. ci ci ci wàllum euh, toj boobu noonu est-ce que bi ngeen gisee ni ñu ngi commencé def pavé surtout nag li gën a li gën xaw a compliqué ci mbir yi mooy liggéey bi ba tey ba tey yembagul te ñu ngi ci troisième bourde yéen ban ban ban analyse ngeen am ci loolu. man analyse bi ma gis man dama jàpp ni liggéey bi travaux gàmmalo rek liggéey la yoo xam ni dañ koo def pour ne ko ci bëtu nit ñi ni dañuy liggéey mais defuñu ko liggéey boo xam ni luy continuer la ndax boo xoolee tali pa tali tali kara yàggul. paabaas lu gaaw la boo xoolee tout droit SD euh, SD bu njëkk bi ba maire yi diggante bi nii boo xoolee avant ñuy màggal ba léegi heure bi waroon na fekk travaux yi pare na féete na boor mais man naan la fii ñu taxaw nii boo xoolee àggul talibale sax ba léegi ñu ngi nekk ci ay travaux yoo xam ni man bi ma jógee dama jaay woon màggal maa ngi ñibbi si samedi samedi ba léegi gisuma kenn ku fi xëy te gisatoo fii biri birigu paabaas yi amatul lu ñëw quoi kon li muy loolu li muy wane mooy ñun danoo ñëw pour yàqal nu mais ñoom ñëwuñu pour liggéey mais tey fii bu fekkoon ñoom danoo taxaw pour liggéey heure bi pavage yi war na àgg bu yàgg mais travaux yi amul avancement arrière la am. est-ce que est-ce que gënul woon ñu bàyyi leen ngeen jaay ba gàmm gi passé après ñu doog a def. loolu loolu mooy dëgg ndax boo xoolee ñu. commerçant yi nekk moom mooy suñu njiit nekk suñu kilifa waroon nañu mën a yërëm bàyyi ba gàmmo jàll bu fekkee day liggéey mu liggéey après gàmmo mais diggante màggal ak gàmmo nga bëgg fee daj fu nekk ni da ngay liggéey loolu liggéeyoo pour man da yàq ndax fii ak dara mënu fee pare fi ñu taxaw nii yow leer nañ la fii nii tey la troisième jour Bordeaux fii ak gàmm travaux yi mënu fee pare ca yàq na feneen ak feneen ak feneen kon loolu ca instant yi gan ñi ñëwagun bu gan ñi ñëwee la dëkk bi di gën a saturé ñun ñi nga xam ne ñun fi lañ dëkk di fi nekk ay at instant bi nii amuñu fu ñu teg kon bu gan ñëwee fa la ñuy teg ñun ñi leen war a dalal fan lañ leen di dalale ndax ñun amuñu fuñ teg bay tegal kenn lii instant yi métti trop métti mais mënuñu ci dara. ban message ngay lancé monsieur le maire Demba Diop Sy. message bi may lancé moom benn la yàq gi moom xës na am ba pare man li ma koy lancé muy lan muy en tant que jeune boo xam ne dama dëkk ci réew mi dëkk ci dëkk bi di liggéeye ci dëkk bi comme samay moroomu jeune li ma koy lancé leen la mooy mu dawal yërmande xam ni fii ay ñoo fi nekk ak ay jarbaatam ak ay sëtam travaux yi comme moom instant bi ñun xam na ni fii ak gàmm travaux yi mënul pare ca mbedd mi mu nekk vide moom loolu mënul nekk moom na ñu a dawal commériation mu bàyyi ñu toog liggéey même bu fekkee ñoom waa maire dañuy wàcc tere bi comme ni ñu ko daan defee gàmmu ñu ñëw dagal ñu ku nekk 2000 wala ñu dagal la ku nekk 3000 ñu mën a toog liggéey bu gàmmu jàllee moom mu continuer ay travaux ndax travaux yi ma gis moom mënu fee yegg fii ak gàmmu bu ñu waxantee dëgg rek. xam nga xam nga bëgg dara mu tax ngay wax. lu dul dëgg ñun ci dëkk bi lañ dëgg buñ sañoon kuy defar dëkk bi dañuy ànd ak yow mais xam na ni ci mbedd lañ nekk travaux yi baax na tey bu fekkoon fii def nañ ko tëli tëli karaw ba mu àgg pavage yi nii bu yeggoon nice bu boobaa trottoir yi li ci des ñun mën nañoo ñëw teg suñu table au lieu que ñu mbaar mais travaux yi boo xoolee ni fi mu toll amul njëriñ ndax travaux yoo xam ne yooyu sànq ci nawet nga nekk ñëw nga dajji mbedd yëpp waxi ko ba mu xóot nii da ngay pavé ba pare pavaay commencé boo xoolee par li nga li nga li nga baabe maanaam soriwul instant yi ne amul rendement amul njëriñ travaux yi moom pour l'instant nii ma li ma gis nii nii lu yàq la fii gàmmu gàmm mais munul defar amul njëriñ quoi waaw ak nawet beeg taw bi gan ñi war a ñëw ñu mbedd yi di nga dal sa oto day yàqu nit dina fi dox faka salu ndax booy xool mbedd yëpp waxi nañ ko fu ne ñu commencé fa ca fenn àggul kon amul njëriñ waaw waxambaane ni toll ci am ak ñàkk jom ji bari lool bàyyi jëm ak yaakaar wuy si xel mi jëm ci tekki doole ji matee kooy waaye réer gane si na maay ma fi bàyyoon topp nafsu njootu jaam ak naataangeen waaye jëmi na ma si lu ma xalaatul woo lëf dugg si na alkandi wi si maay jaaxle kane si maay